waa Bamba famille waa Medina ak investir maa ngi dellu di leen gërëmaat eh, di leen sant ci victoire bu neex bi ma leen di xamal ne ñii di yuuxu bojo bojo yi loolu lañ loolu moo leen dese bàyyi leen leen ñu yuuxoo di contesté li leer mooy 97 PV yi ñu yor ñun ñoo gagné te amul benn contestation ñoom amuñu benn réserve bu ñu ci def ñun ñoo leen devancé lu bëree bëree bëri kon boog déggu leen kenn ci kilifa yu ko boor wax ay bojo bojo rek ngeen di dégg ñoo xam ne nekkuñu sax investir ñu leen donc dalal leen seen xel victoire bi am na ba pare léegi damay bàyyi sax ba gannaaw suuf ba nga xam ne tribunal génne na ko ñu def ngan ni membre conseil jubilé kon dalal leen seen xel ñii dañu bëgg a dox seen maay te bu leen ko nangu ñun ñoo gañe te ñoo gañe ba léegi te dara tug mënatu koo dindi jërëjëf